Guelwaar c'est être digne c'est être un patriote c'est être incorruptible c'est mettre l'intérêt général au service se mettre au service de l'intérêt général kon ñun ci loolu yoon woowu ci la ñu sóobu ah yoon wi nag du yomb dina metti lool waaye nag permanence bi fayuleen ko xanaa pour jël ay photo docteur Babacar Diop dugal fi sénégal yi photo docteur Babacar Diop intéressé wu leen di leen intéressé mooy yéen Guelwaar ñun Guelwaar ban projet ban yéene la ñu am ci askan bi loolu nag am na lu ma ci jukki léegi ci wàllu économie bëgg nañu tabaxaat suñu économie réew ba réew mi moom boppam loolu la ca jiitu mooy industrialisation ñiy wax émergence xamuñu luy émergence émergence mënta am ci industrialisation amul dinañ tabaxat suñu économie la ca jiit mooy souveraineté monétaire amul benn réew ci àdduna bu développé boo xamante ni ci sa monnaie amoo sa moomoo sa monnaie amul benn réew ci àdduna boo xamante ni dangaa tayle sa monnaie nga développé wu ku ko xam ci borom xam-xam bu ko xam fii ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna nag ma ko indil réew yi jiitu ci Afrique classement banque mondiale def dix pays yi nga xamante ni ñoo ci jiitu li ci curiosité bi mooy benn pays francophone bokk ci benn pays bu utiliser CFA bokk ci benn pays bu nekk ci troisième quatrième mandat aussi bokk ci kon loolu am na luñ ci war a mën a jàngat souveraineté monétaire beneen bi mooy réew la muy dunde da ko war a bay fii li fi nekk ci suuf ci suñu réew mi li fi nekk ci ay ndaw li fi nek ci ay ndox ñu dem ba tay ñuy jeggi jëggaani lu ñuy dunde loolu toroxtaange ci rew mi la war nañ ci taxaw bu baaxa baax ñu ni suñu programme njang dina ci am solo lol njang mepp mu nek arab muy njangum français muy langue nationale muy ñi nga xamanteni ñi ngi ci daara yi parce que jang ci lañu mëna tabax rew formation xalé yi am formation bu baax formation boobu bu jeexee ñu am mën a am liggéey ci wàllu environnement dinañ ci am ay yoo xamante ni dinañ ko ci génne ndaxte bu ngeen seetee géej gi mi ngi avancé ci réew mi géej gi mi ngi dox ca géej gi am na ay dëkk yu bëree yoo xamante ni géej gi commencé leen a nangu boo demee Ndar am na ay quartiers yoo xamante ni dañ leen di ñàkk fii ci Dakar am na ay quartiers yoo xamante ni danañ leen ñàkk delta du Saloum loolu am na fa kon loolu war nañoo xeex ak moom li nga xamante ni mooy àll bi forêt bi la xew Casamance jéeyi ju ñu bàyyi ay samba booy ñu ñu nërmeel àllu Casamance loolu war nañ cee jóg bu baax a baax a baax ndax loolu li wane ni mooy ñun war nañoo dund ñun ñi nga xam ñoo bokk tey war nañoo may suñuy doom suñuy bu ëllëgee bu ñu ñëwee am fi programme boobu ci gouvernance dinañ xeex ger dinañ xeex yàq alalu askan wi dinañ xeex ñi nga xam dañoo toog ci kalamu askan wi di ci dund dinañu fexe ba nga xamante ni dañ ñi nga xam dañ leen dénk liñ leen dénk askan wi di mën a di ko man a saytu jamono bu nekk ci loolu dinañu tënk benn téere boo xamante ni ñu ngi koy bind téere boobu ay boroomi xam-xam ci biir réew mi ay boroomi xam-xam yu nekk bitim réew Sénégal ñor leen ñenn ñi sax bokkuñu FDS waaye am nañ yaakaar ci FDS ñi bind ko mu nekk suñu projet ndaxte parti boo ko taxawale taxawal permanence war ngaa wax réew mi fan nga jëm may profito ci jataay bi di ñaan Alassane Ouattara di ñaan Alpha Condé nañ wormaal Afrique wormaal seeni réew di ñaan Alpha Condé président Alassane Ouattara nañu xool ci njuumte yi nga xamante ni Ibrahima Boubacar Keïta def na ko ñu moytu ko di profito di sargal waa Mali jàmbaar lañ de xale yi Mali war nañu xale yi Sénégal ak xale yi Afrique yoon ba tey jii ñi nga xamante ni dañ leen doon fal ñu jàpp ni ñoom ñooy buur di buñ te koo ci waxal mu ni la mandat laa yor xale Mali war nañ wane wane nañ ni askan moo yor doole buñ la falee ca lañ la fale mate ko askan wi am na sañ-sañu nangu ko foqarti ko kaneen loolu la peuple malien dal di def loolu moo tax li ñuy wax troisième mandat ah dañ de président Macky Sall je m'adresse à vous il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal ça c'est acté c'est très clair la jeunesse sénégalaise ou les musa nangou jeunesse malienne ëpp les fit Ou les fayda il n'y aura pas de coup d'état au Sénégal mais s'il tente le troisième mandat, il y aura une révolution populaire, citoyenne, démocratique. C'est moi qui vous le dis, vous pouvez noter. Il n'y aura pas de coup d'État, mais il y aura une révolution populaire ici. Il n'y aura pas de troisième mandat. C'est notre pays. Ce n'est pas le pays de Macky Ce n'est pas le pays de la famille, de la dynastie des Faïsal. Nous ne l'accepterons pas je demande Dignan ñaan askanu Côte d'Ivoire di ñaan Guinée Boulen wa Mali pour fit ëpp leen fayda Alassane Ouattara moomul Côte d'Ivoire Alpha Condé moomul Guinée li xew ci Mali la ñu bëgg mu nous voulons une révolution citoyenne dans tous les pays de la CEDEAO et dans les deux prochains jours je m'adresserai au peuple de de de la CEDEAO ci bataaxal boo xamante ni dina ci wax ak askanu CEDEAO yëpp nous sommes contre donc CEDEAO des chefs d'État bande de chefs d'État club de chefs d'État incompétents corrompus corrompus bëgg ñu imposer lolu du am askan yu mo yor doole askan wi mo ëpp doole mo am sañ-sañ du yomb nak ndax am na daañ sàcc bu fi nekk boo xam ni la ma ko waxoon moo fi ne ku yëngu mu falan ay tànkam jéem na ko ci ñu bari ñu ñii jéem na ko mon ami Guy Marius Sagna que je mais la ma ko waxoon Sorano laa koy wax loo falan falan falan du ma tee ñëw ñaari lawar weer du ma ñëw jaaseeg mbaram ci bët du ma tee ñëw jaay doole ak kaso du ma tee ñëw alkaati ci kaw tali du ma tee ñëw ca su ma ñëwee jaaju la donc loolu c'est un message destiné au président Macky Sall di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ wuy suñu tey xat na waaye ñëw nañ li ci jiital le président sa Seck c'est un allié loo ci mën a dégg sama diggante ak moom dama koy wax